Mm. mbaa am nga jàmm a suuf ba ñëpp ñu ngi si jàmm sant bu baax. mais mais mais naka naka ndaamaar gi. waaw naaj naaj sant yàlla bu baax. Mm. li ala luy mottali dund doomu aadama rek. mais li bokkul terew ñu dund dem fu ñu bëgg a dem. moom du Quench hmm? moo ko moom man oto bi may jëndal si sama xaalis si sama ah. poos boobu laa moom bi directeur central bu ko yëkkatee may ma ko da ko delloowaat Bargny ndeysaan parce que moom bu fekkoon ne ñëwul Bargny hmm. doon directeur central électrique bu Bargny kon du demee noonu comprendre nga kon bu ma mayee Bargny la ko delloo hmm. comprendre nga man aw ma dara lu ma si wàllu dul di ko ñaanal moo Malick Seck DG Malick Seck yàlla guddal fanam te bàyyi ko suñu kanam te yokk ko te xam ne li mu ma defal nii lu rëy la ba pare deuxième bi li ma gën a neex si moom moom mu ngi si jàkka yi mu ngi si hôpital yi mu ngi hmm. social mu ngi si dimbali dëkk bi daal waaw dañ koy waxaat tamit mu gën a emploi jëlaat ay emploi ci biir dëkk bi surtout loolu boo gisee tamit gars yi di mbëkki nii yëpp di dugg si gaal yi mm. ñàkk espoir ñàkk am xëy moo moo koy waral quoi maa ngi koy ñaan tamit lépp lu dëkk bi di bëgg mm. te nekk si mu siy taxaw te mu ngi sax mais ñu wax mu gën a dolli am na jàkka yu fi ne jàkka yi cité jumaa jaa ngi fi jàkka yi minam comprends nga ni mu taxawee si jumaa yi minam jumaa yi yëpp na na fa taxaw si jàkka yi cité ji surtout jàkka yi bi xam ne dañuy soor a commencé soor am jàkki bëgg naa mu taxaw si waxtaan naa moom tamit te xam naa dina si ñëw. hôpital bi nga xam ne tamit moom lañ def bari ni muy euh, centre de santé bi ne foofu. centre du Diop. Mm. waaw bëgg nañ tamit mu jàpp si. fondation nañ ko bu pare. comprendre nga mu ñëw teg si loxoom rek pour mu yegg. tamit ñu ngi ko koy ñaan bu baax. di nuyu Mor di nuyu tamit ay Sorosol. Mm. di nuyu équipe bi yëpp. comprendre nga ku mel ni Pape Pape Camara comprendre nga. ay gaam équipe bi yëpp daal ñëpp rek neel ñëpp rek. comprends nga Adama Baxaw ku ma limul nga xam ne. nit moom la surtout sama frère Aziz tamit. maa ngay siyaar bu baax waaw mais tey ginnaaw daal lan la fekk. waaw ginnaaw raay maa ngi tamit di nuyu waa ginnaaw raay yëpp. Mm-hmm. parce que bi ma fi ñëwee damaa yaakaar ne sax bari ñu laa ne. fu ma tourné waa ginnaaw raay Quench sa combat la ñuy xaar Quench sa combat la ñuy ma ne mais man ñi la laa leen defal. comprends man yaakaaru moo ne woon ne sax ginnaaw raay am na ñu ma fi bëggee nii. Ah. mais sant yàlla bu baax sant yàlla. sant yàlla bu baax maa leen di sant bu baax sama diggante Baye Balla leneen la. parce que Baye Balla moom moo def lu tax ma jàpp ko. Baye Balla nii rek mm-hmm. dañuy wax téléphone may waas benn copain na jox ma foofu 2000 ma raxas oto bi. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. kooku na ma maa ngi ñëw mu na ma lan moo tax kooku na maa ngi ñëw si ni ñuy waxee téléphone mu ma xoolal am na lu ma la dugalal. ndeysaan. comprendre nga te mm-hmm. fii nit bu lay waxal dañuy yaakaar ne ñun suñu alal jox ko noonu. yàlla xam na kaa yonante bi bàyyi baax la moom moo baax. te su ma diggantee moom du mën a man la moom la. du làmb daal comme du affaire da làmb ay làmb lan làmb yi ala foofu mu xaalis la. waaw làmb yi yëpp day jiyee. comprendre nga leneen moo fi des comprendre nga man su ma diggantee nit du ma ko jàppee sama diggantee làmb parce que boo ko jàppee ngir làmb boo bëréewul doo fa dem dëgg la te tey bés bi Baye Balla woote nii muy tudd doomam hmm. bu woola téléphone léegi nanga man a dee déplacé wu ñëw adduna ñaar ñoo si am da ngay àndal nit si naqar à bànnee dëgg la muy dund ah dee moo fi ne jàmm wala xewum dëj loolu moo fi am bu amee tamit muy lu si man a doon ñu ñëw teew xam ne ànd mbokk la du question ko mbokk mooy ki nga bokkal deret non non mbokk mooy ki nga yëg mu yëg la loolu mooy mbokk nit dina la sori lool fekke jege na la nit jege la lool fekke sori na la kon bàyyi baa la mbub moom moo liggéey lu tax man ma jàpp ko man nag ku am bés woo ma damaa am bés ma déplacé wu ñëw ku ma dégg tamit sa bés ma dégg sama nopp ah, ma ñëw Ibrahima Diop tamit maa ngi koy nuyu bu baax ah. promoteur bu baax la ñu koy ñaanal Kajoor euh, bébé bi mu doon ngénte tamit yàlla def ko mag mag mu am ñam u diine magu lislaam muy nit ku baax Ibulaay tamit ñu koy ñaanal bés bi mu jëm nii la 17 décembre jën kër Zarko maa ngi ñaan amateur yëpp ñu ñëw feesal amateur la parce que làmb ji doonatul làmb supporter làmb amateur la parce que amateur yi ñoo naan ñoom ñi xam ne ñooy monter combat yi ñoom amateur yi waaw bëgguma ñu monter combat yi war toog seen i kër ñoom ñi nga xam ne ñooy dugal site internet yi si réseau yi di commentaire naan combat diw diw xam nga ne buñ ne jën kër Zarko rek loolu soxla combat soxla kon nañuy ñëw jàpp si bés bi. Mm. parce que promoteur bu fi ñëw. Mm. si làmb. Mm. dañ ko war a gunge jàppale ka te xam ne yokkute làmb la. làmb raflewul ay mbër ay promoteur la rafle. ay bésam réussir ba mu mën see nekk. mais boo tëggee daanu tëggaat foo foo looy def. mënul ne kenn ku si ne teraanga ngay wut. si sa liggéey boo ko mënul am da dem wuti lu neen. comprendre kon promoteur yi fi ñëw tamit. ñu uh-huh. leen di ñu gën a yokk. Euh, combat sa diggante ak Franc. Ibulaay sama sama sama sëriñ moo ñu boole. comprendre nga Babacar a boole sa làmb wala bëgg sëñ Moustapha bu sëñ Bay si Abdou. ma koy nuyu sama sëriñ. Ah, sama Bay si Abdou. waaw Moustapha si sëriñ Bay si Abdou waaw ñoom ñëpp dañuy xaar nag. Euh. ñoom ñëpp bu ñëwee Tiwaawan sama gannaaw non Alpha Sarr kooku kër sëñ bi lay nekk waaye déggoo li ma laa man sëriñ bi doomam sama xarit la moo ñaan si woon sama soxna waaw sëñ Mbaye si non non sëriñ Mbaye si doomam Moustapha si moo ñaan si ah, woon sama soxna comprendre nga maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a baax moom laay wax Njool Fuuta waaw mooy sëñ Mbaye si Abdou ma ne doomam Moustapha si maa ngi koy bu baax ñu ngi koy comprendre tamit xam ne taxawaayam si boppam tamit ñu ngi koy rafetlu te di ko ñaanal ku mel ni Viekane ku mel ni ñëwal ci ñëwal mbokki Tiwaawan gi yëpp Njaasaan Yoof yëpp yàllaa rek moo tax ma dugg non man boo jarul ngeen may wax ay Franc man ngénte laa ñëw muy ngénteel Baye Balla Mbuub ay mbërax yii nii loolu amul problème promoteur nag mën nga ma si laaj ma waa si xamalu kii dafa jëm bés ibu laay waaw mën a nekk yooyu yëpp mën a nekk parce que man combat bi mu waree taxaw si franc la tagee woon te dootuma si wax du ma si wax eh. bu mu amee luñ may wax. franc ci moom la tagee. non bëgguma ñuy nekk fi di yaatu. ci la tagee. si moom la tagee woon léegi. ku doon dox loolu ne mooy lan. ngeen di laaj tegoo xel ku doon dox loolu. non non du ma wax sax ki ko doon dox. Franc daal nee na bëggul coince moom na seeti ku ko nee. Eh. loolu laa am lu ma si waaw parce que bëgguma saa yi ma ma dikkee micro. waaw ma naan Franc Franc bu yàggee moom dama koy catu waa <laughs> ma dara wax si moom te di ko ñaanal tamit li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko rek. affaire daal <laughs> ah, loolu yóbbante loolu yóbbante la wala. non dama ne ànd ak mbëru mag taxul ngeen ah, ah. a <laughs> ma koy wax mooy. moom kon que ñoom Balla Gaye la bëgg ñeneen ak ñeneen. Eh. yaa nag yàlla defal mais yow nag koo bëgg. man daal maa ngi fuur làmb. waaw gis naa gars yi li ma la fii mbër moo fi tudd. waaw mu ne na si sëriñam waajal ka. non non xaaruma kenn promoteur ñooy dese ñoo naan koñ sa diw laa bëgg. waaw masa bi tas. nga naan doomu sedd kii naan doomu sedd. mais su ma la joxee Alioune Seye mbër ma naan doomu sedd. déggoo li ma la xanaa. dama fi doon ne naan Alioune wala kii wala kële dama na promoteur bi mooy ñëw xool combat bi mu bëggal Coins Coins diw laa lay booleel ma ne nga demal waxtaanaa grand Moussa lamb yëpp arrangé na la nañ dem waxtaanaa grand Moussa Gueye kilifa bu ñu waxee moom ku ma bu d'accordé rek amul problème waxuma pare naa pour bëree Franc dama ngay leeral waxuma lool de. pare naa pour bëree Franc waxuma lool dama. mais mais lu ñu bëgg man si loolu laa ne. léegi man internet nga. la waaw mais yow si site internet yow lu lay may ay vies yi wax mais waxoo loo xam ne mooy loolu. lenn daal laa siy wax. man néew ma fi pour benn mbër néew ma fi pour ñaari mbër. néew ma fi pour ñetti mbër. maa ngi fi pour làmb man dama war doon roi des arènes. Mm. kenn laa fiy ñaan chance mooy la dëgër à part la dëgër ñaanaatuma fi kenn chance yow la dëgër yow. la dëgër laa bëgg a bëri jaar la dëgër. moom laa bëgg a bëri. di profité tamit di ko félicité di encouragé Sida di ko wax ne tamit grand contre petit naka gars yi taxawal. waaw neex na neex na tas Balla ngay jël Sida. comprendre nga jël coins <laughs> gars yi si kaw wàcce bëre yaaxul dara Balla Gaye roi des arènes gi mu doon vingt quatre ans nga doon roi des arènes mbër dootu ko fi def comprendre nga mënatul bu doonaatoon roi des arènes ñetti yoon waat mënatul saf bi muy daan liggéey comprendre kon moo amul lu muy buur fe xamal ko dese Balla Gaye leen naa nga dese ut ay kër ut xaalis kese mais tarkindaay dañoo mere dañoo dugal seen seen recours mais dañoo jox dañoo protéger arbitre mais xamaloo gis rek loo gis am na ñu koy dox. waaw comprendre nga c'est un recours am am na ñu koy dox ñoo CNG loolu man du ma aw ma lu ma siy wax. mais loo ci gis en tant que mbër. man gis naa la dégeer génne. dëgg la yàlla bëgg dëgg la yàlla bëgg. kon ama vidéo boobu lañ jël yóbbu ko. comprendre nga la dégeer bi mu génnee jox ñu ko si avertissement. mu ngi sama téléphone sa vidéo boobu. kon su ma la déggee kon est-ce que tarkindaay newuñu ci dëgg kon. waa man si man ñoo ne si dëgg. si man ñoo ne si dëgg mais nag. loolu yëpp en tout cas COINS du moo yor règlement. wala keneen ak keneen man li ma si lii. mooy déglu li ma doon ñaan mooy Siteu yàlla may ka ndam. kon que noonu la ko yàlla xeeñee tamit. Hmm. na sant te xam ne ne mënoon na gën a métti ka noonu. yàlla bu la bëggee bés bu mag la lay suturaal. Hmm. kon nag yooyu ay détails la Siteu même bu ko la déggee daanoon bu toog si dënnaam terew ko yegg fi mu a yegg. parce que lii si ginnaaw li nga topp dafa toppul mais nëmbër si Siteu li nga topp toppul Modou Lo toppul Balla Gaye toppul Ama Baldé toppul kenn loolu yàlla moo ko jagleel moo tax sax moom sax mënu leen canaliser moom si boppam moom mënul dara si supporteram Siteu si coono yi kese la dëkk mm. boo diggee ñu naan suudu jàmmi borom Siteu moo tax ñuy wax mm-hmm. moo gën a sonn si mbër yi parce que moom ay fansaam gëmewuñu ko buy génne di jëndi ndékki sax dañ koy topp comprendre si biir jàmm gën jàmm gën si boppam miisuñu Siteu bu génnee dem entraînement dañ koy topp buy ñëw lamsaar day mel ni Siteu muy dem làmb comprendre ku mel noonu bu ko yàlla defelee loolu da nga koy nangul te xam ne lii du ay sëriñ jagleb suñu borom la maa ngi koy ñaanal di ko féliciter tamit bu baax uh-huh. te di ko wax ne làmbaam mu ngi si kanamam waaw mu gën a góor góor lu yokkaat entraînement am te xam ne uh-huh. baatu roi des arènes bi mu bëgg a bëri ah. comprendre nga yombul mooy li koy yombalal mooy ne dolliwaat entraînement man loolu rek laa koy wax dégg nga loolu la Quench wax mais nag mbokk yi bu leen fàttee le 17 décembre 17 décembre bis la boo xamante ni àddina ñëpp nga koy waaj nee naa la waa Fekke TV dinañ dem ci mbër yi jël leen dem ci supporters yi jël leen dem ci ñëpp ndax kan moo tax ki nga xamante ne nii moom mooy ah Ibou Laye face bi nag suba la incha allah ca TFM yooyu yëpp ñu ngi ciy woo ñi nga xamante ni nii ah ñoom ñooy presse bi ñu ñëw jël arrivé mbër yi nga xamante ni nii bis la boo xamante ni jën kayre mu war a ñëw ah. ki nga xamante ne nii moom mooy Zarko war a ñëw combat confirmation mbokk yi foofu lañ koy kal bëgg nañ ci yéen de alaaji makan bëgg naa waa tey dama sañse tey dama doon séddale laax nag mënta ñàkk moo tax lii pour laax la séddale laax rek waaw yaa ma gën a xam mais kontaan nañu na gars di abonné di partager di commentaire li ngeen bëgg makan mii di fekkee TV di leen ko jox di leen ko bind ci commentaire bi kontaan nañu ndam rek ndam rek. amiin waaw ñu dem waaw. kii mooy bëree Zorko Ada Fass